ci yenn kaay yi. ci yenn kaay yi. El Elhadji leen jàmm ci xibaar yi yi nga xam ne nag moom la xëyandoo yéenekaay bi di l'observateur di ñu xamal ne nag marché Sandaga yéenekaay bi di ñu xamal ne jamono jëm ne ci fànagul mel ñooy ji wóoratul jël na dogal gannaaw waxtaan gu yaatu goo xam ne daal mi ngi ko doon amal di koy seq kilifa yu bëri yéen bi dañu xamal moom kay ca la dogal daal di xew nag lu toll ne nag mel maanaam daal ñi nga xam ne daal ñoo nekkee foofe danañ leen recaser maanaam daal danañ wut feneen fa lañ leen dugal ca jamono ja jëm na ci réewum Sénégal ak réseaux sociaux mënu ji nag loolee ay jafe-jafe la andil ñi nga xam ne nag ñoo nekk fafe gannaaw journaliste bi nga xam ne daal moom la ñu Adama Gaye kàddu yi nga xam ne daal yëkkati na ko jëm laata bi ni yéen kaay di yéen kaay des médias gi di ñu xamal ne kay jamono ji ki nga xam ne kay mooy procureur de la république lépp loo xam ne nag jëm na ci loolee jamono ji nag dafa soppi anam yi nga xam ne daal noonu la doon doxale yéen kaay bi di ñu xamal kay procureur bi kay gannaaw conférence de presse yi nga xam ne daal moom la doon amal jamono ji nag daa soppi doxin maanaam daal procureur bi de lépp loo xam ne nag jëm na ci ay communiqué de presse yi lay yëkkati daal daal ca jamono jojee

quotidien ñu xamal ne fukki nit nga xam ne daal ñoo def jëf ju fi nga xam ne nag moo di kasa ca jamono joojee njiitu réew mi nag loo xam ne nag jëm na administration Sénégal ak na muy dox yéenekaay bi di ñu xamal ne loolee kay njiitu réew mi yitteel na ko lool ndaxte kay dafa jàpp ne maanaam daal ak yeexte am na waaye tamit lépp loo xam ne nag jëm na ci ni ñi nga xam ne daal noonu la jëfandikoo li nga xam ne nag moo di xaalisu réew moo fi rate woon penalty bu rëy ba waaye tamit ñàkk sens gu rëy moo dab ki nga xam ne nag moo di Aliou Cissé